هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه subhaanaka allahumma laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilma rabbi shrax li sadri wa yassir li amri waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli seetaan ci seen bii di Daara ñu ngi dellu di leen dalal ci seen jataay bii di tafsirul nekk ci weeru koor ñaan yàlla mu defal nu tawfiq nangul nu koor geeg jaamu yiñ ci jaamoo ñaan yi yëpp yàlla nangul nu ko nangul bépp jullit di sant mbokk yi nga xam ne rek ñu ngi topp émission bi eh, ak seeni rafetlu ndeysaan di ñaan yàlla seen ñaan yi ñuy ñaan yu am solo yi yàlla na yàlla nangu lépp te boole nu ko boole ko boole nu ko jullit ñëpp yàlla boole min ahlil quran alladina wa xaasatuhu yàlla boole ca ñooñ alquran fi dunia wal axira yàlla nu ci yàlla boole noonu yéen yépp kon mbokki jullit yi démb noo ngi woon ci suratu charx tey comme niñ ko digee woon dañuy ñëwaat rek ci saar wi ci topp muy suratu duha ñoom ñaar di ñaari saar yoo xam ni danañ gis ne dañ am na luñ nuróole lu bari loo xam ne ni ñoom ñaar dañ ko bokkale waaye dañuy ñëw rek def niñ daan def ànd teewlu nu jàng saar yu nu dégg ndax niñ koy fàttalee rek saa su nekk ñu xam ne émission bii dafa taxawe ñaari tànk benn bi mooy fexe ba wéral njànginum alquran niñ koy jànge ñu wéral ko nit ki buy jàng alquran mu wóor ko ne nii la ko yàlla wàccee woon loolu dafa dal xel dafa dal xel macha allah yàlla na ko yàlla defal kon loolu benn tànk la bu émission bi di taxawee beneen tànk bi mooy loolu yi nuy jàng ñu jéem a xam lu ñu ci yàlla wax ndax nag ab leetar ku la ko bind wax dëgg war ngaa jéem a xam leetar bii mu la bind lum ci wax rawatinaak nag sa kilifa yónnee la leetar bi yàlla def noo yónnee ab leetar muy alxuraan li bëgg lépp a ngi ci li muy bañ lépp a ngi ci li mu digee lépp a ngi ci leetar boobu yi war na noo xam fu mu jóge gannaaw fu mu jóge la war a jóge ñëw fi mu war a ñëw kii mu ñëw ci moom war naa fexe ba góor góorlu ba xam leetar bi lu ci ne bu ko xamee itam xam googu dana ko dimbale ci mu mën a jëfandikoo lettre boobu yi ki ci jariñ mu jariñoo ko li ci nekk ci lu mu war a moytu mu moytandiku ko kon loolu mooy sabab bi tax ñuy jéem a ñëw di leeral li nga xam ne nii moom mooy eh, alquranul karim ndax alquran lépp lépp a war a leer luñ mënta leeral new ci yàlla defal dégg rek ak jariñoo kon nu bokk teewlu saar wi nu jàng ko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 الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا سائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث suuratu suuratu duha mu ngi noonu di saar woo xam ni moom itam borom bi subhaanahu wa taala daf ci wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay xéewal yu mu ko defal comme niñ ko waxee woon démb ci suratu sharx borom bi subhaanahu wa taala gis ngeen ne ay xéewal yu mu defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ci doon wax ñaari xéewal yi lu leen wuutale xéewal yii ci suratu duxaa ñu nara a jànkonte ñu nar a jàkkaarloog moom tey ay xéewali bitti la yuy feeñ fàng ñu di ko gis xéewal yee ci suuratu charx ay xéewali biir la yoo xam ne ni yu ñuy yëg la yu ñuy dund la di ko xam waaye yépp ay xéewal la yoo xam ne ni borom bi subhaanahu wa taala daf ko defal yonent bi waaye di ko ko fàttali di ko ko bàyyiloo xel di ko sant mu sant ko ci xéewal yooyu di ko sant mu taxawe anam yi nga xam ne ni moom la xéewal laaj képp kuñ defal xéewal moom la laaj mu di ko bàyyiloo xel lool borom bi subhaanahu wa taala ngi ubbee saar wi ngiñ ñu fàttaliwaat rek luñ waxoon ca gannaaw waxaat ko ni borom bi subhaanahu wa mooy ki nga xam ne sañ naa tànn lu ko neex mu giñ ca sañ naa giñ ci boppam sañ naa giñ ci lu ko neex ci mbindaafonam waaye lu mu giñ rek loola day lu am solo day lu màgg dafa am ay njariñ yu ca nekk wala màggaay gu loola am feeñaloon nañ loola bañ nekkee ci suratu tiin wa tiini wa zaytuun fii borom bi subhaanahu wa taala mi ngi giñ ci adduxa wadduxa wa layli ida saja kon giñ na ci ñaari mbir lu ko tax di giñ li taxoon lii wàcc borom bi subhaanahu wa taala moom mooy wàccee wax yoom di ko jox jibril mu di ko indil yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi ndeysaan miin jibril di wéttali ko jibril muy jóge asamaan di ko indil wax yu muy jottali wax yu boobu ndax wax yu boobu di jóge asamaan mooy dundal ko suuf leer la yàlla di wàccee muy jóge asamaan di ñëw ci moom yonent bi amub diir wax yu boobu dagg gisatul jibril indilu ko dara mu dem ba waa Quraysh waa Makka naan du dara seytaaneem see ko foñ rek moo ko bañ rek moo ko gàddaay da koo ba bi mu doon wax da koo ba waaw dem nañ sax ndeysaan ba di ko ko wax naan ko dara jot la lu dul sa sa seytaane si moo la bañ moo la ba borom bi subhaanahu wa taala yonent bi loolu diisoon na ci moom lool diisoon na ci moom lool ndeysaan metti woon na ci moom lool waaye bu ngeen seetloo saar wi ñu weesu démb muy suratu sarx yàlla seedaloon na ko ni ko fa inna maa al usri yusra inna maa al usri yusra jafe-jafe tar-tar lu mu nu mu mën a toll xamal na yomb-yomb la àndal mi ngi ñëw waaye itam xam nga ne yàlla seddaloon na ko ubbi gu yàlla ubbi dënnam lu mbir tiis tiis ci moom mën na koo supporter yàlla def na ci moom luy tax mu mën koo dékku kon lii di son na ci moom lool waaye nag muñ rek muñ ba yàlla indi tontu ñi doon wax loolu tontul yonent bi kon yàlla du moom yonent bi du moom mooy tontu waaye yàllaa koy tontul moom yàllaa koy tontul borom bi subhaanahu wa taala ni wadduhaa maa ngi giñ ci yoor yoor adduhaa mooy awalu nahaar maa ngi giñ ci yoor yoor dafa am solo waxtu waxtu temps ci boppam dafa am solo gisoon nañ ko ci bañ tollee ci wala asr temps dafa am solo yàlla jël lenn ci temps muy waxtu yoor-yoor di nga xam ne mooy tàmbalikaayu bis bi nga xam ne lu nit ñi di def li ci ëpp foofu la heure boobu la ñuy xëy di ko def lu nit nar a def ci bis bi moom boo xëyee da nga ca jublu yàlla jël waxtu woowu giñ ci ndax màggaayam am gu mu am solo wa duha am ñu ne ab duha mooy léppi bëccëg bi rek la yàlla yàlla jublu ci lay giñ mooy kon bëccëg bi yëpp. waaye li gën a wér mooy ab mooy yoor-yoor waxtu yoor-yoor nga xam na ni mi ngi tàmbalee fi jant bi fenke yëkkati ko tuuti ba bi bi di jot diggante boobu mooy waxtu duxaa yàlla ne maa ngi giñ ci waxtu woow yi wal lii maa ngi giñ ci guddi ida saja bu demee ba lëndama muur àdduna bu demee ba lëndëm bu demee maa ngi giñ ci guddi bu demee ba lëndëm kon giñ na ci bëccëg giñ na ci guddi te loolu rek ay temps loolu rek ay jamono jamono moom guddeeg bëccëg rek la leneen amu fi dafa am parti bu mu jël ci bëccëg am parti bu mu jël ci guddi lépp làmb guddeeg bëccëg nee na maa ngi giñ ci ñaar yooyu muy guddeeg bëccëg maa waddaaka sa borom bawu la bawu la de bàyyiwu la de ñii naan sa borom daf laa bàyyi mukk yàlla bàyyiwu la sa borom maa waddaaka baw la bàyyiwu la rabbuka sa borom wa maa qalaa bañu la it nag bañu la li mu doon wax mooy daf laa bàyyi daf laa bañ dañ ko doon wax naan ki naan ko maa raa maa ara qalaak daara li gis daal mooy sa sa seytaane si la daan dikkal daf laa bañ bàyyi na la ndax daf laa bañ yàlla ni ko maa waddaaka rabbuka sa borom bawla kooku ñuy tudde na mooy sa seytaane déedéet du du seytaane sa boroom la te sa boroom moom ñu naan def la ba bawu la wama qalaaka waaye jeexintali aaya yi moo tax wama qala bañu la maa waddaaka rabbuka wama qala sa boroom bawu la bañu la itam bañu la ba di la ba eh, wala laaxiratu lii ñëw lii ñëw ci ci kanam xayrul laka moo gën ci yow fuuf te moo lay dàqal minal wulaa ci li jiitu lii ñëw moo gën fuuf moo dàq foofu li jiitu muñal rek soreetul gis nga yi ñuy wax métit yi ñu lay teg coono yi ñu lay teg euh, loraange yi nga xam ne ñu la koy teg ci wax ak di jëf muñal rek lii ñëw moo daq li ci kanam moo dàq laa laaxiratu xayrul laka minal wula loolu fii ci àdduna la waaye fële ci alaaxira itam wala laaxiratu lay ñëw alaaxira xayrul laka moo gën foofu ci yow moo dàq foofu ci yow mina luulaa ci lépp loo xam ne nii gis nga ko fii ci àdduna kon ci biir dund gi li ngay gis di jànkonteeg moom lii ñëw koy dàq kon muñal lii lii ñëw mooy dàq lépp ci àdduna la waaye niki itam lii ngay gis ci àdduna luñ la fi mën a jox sax ci xéewal luñ la fi mën a jox sax ci ndimbal la lay xaar alaaxira moo dàq loolu dana dimbale nit ki ba mu muñ dana taxitam mu xam ne ki mu amal affaire ku ko yittewoo la du ko bàyyi benn yoon du ko seetaan benn yoon du ko sàggane benn yoon wala laaxiratu xayrun laka min walla wala sawfa yuctiika rabbuka fa tarda wala sawfa yuctiika dana la jox ko sa boroom ci xeeti xéewal yépp xeeti ndimbal yépp sa boroom dana la ci jox fatar ba nga bëgg ba nga kontaan sa boroom dana la dimbale ba nga bëgg ba nga yëg ne dimbale na la dana la joxe xéewal ba nga yëg ne xéewale na la dana la taxawu ba nga yëg ne taxawu na la kon lii ñëw moo daq lii nga toll moo daq li nga jot a gis moo dàq li weesu kon li ci kanam moo dàq fuuf ndimbal loolu fii ci àdduna waaye fële ci alaaxira itam yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ne bi mu bi bi bi yàlla waxee lii dafa ne ah laa ardaa wa waaxidun min ummati fi naar yàlla di kum wax na lii man de duma am duma bég duma am duma kontaan fekk kenn rek ci sama xeet mu ngi des safara moo tax xeetu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam kenn du ci sax safara bu ñu wax xeet woowu nag mooy ummatul ijaaba xam ngeen ne xeetu yonent yàlla muhammad dafa am ummatu daawa am ummatul ijaaba xeet wi nga xam ne nii mooy ummatu daawa mooy moom ñëpp ci ne ñëpp la ndax ci ñëpp lañ ko yónnee ci ñëpp lañ ko yónnee boobu moo gën a yaatu waaye ummatul ijaaba nag mooy ñi si mooy jullit ñi ñi si jullit moom buy dugg safara it du fa sax faw këram mujjukaay mujjam mooy al alla mooy aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa nag bu demee ba yëg ni xeet wi ñépp nga aljanna booba lay doog a am la ko gënal nag moo tax laa arda wa waxidun min ummati fi nnaar du ma am la ma gënal mukk feek kenn rek kenn rek ci xeet wi ma nga des mu nga des safara moo tax kay ka fa gën a yàgg du fa sax day day génn aljanna lay lay mujj fa lay dëkkuwaayam yàlla na nu safara wómp nag noonu yàlla nanu safara wómp kon loolu mooy li nga xam ne nii eh, borom bi subhaanahu wa digg na ko ko wala sawfa yu'tika rabbuka sa boroom dana la jox fatarda ba nga bég ba nga kontaan fii ci àdduna yàlla dana ko fi dimbale ba mu bég ba yëg ni yàlla dimbale na ko dana ko tasaareel diineem jii ba mu yëg ni yàlla tasaareel na ko diineem ji tasaareel na ko wooteem bii ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fi daataan jóge rek gis ngeen ne ah, woote bi dem na fu baree bare bare waaye itam yàlla jox na ko assurance ba mu wax ne woote bi fu jant bi di fenk fu fu jant di tiim rek dana fa dugg fu jant di fenk rek dana fa dugg mooy dana daj àdduna ku mu neex ak ku mu naqari bi izzi azizin aw bi dulli dalil waaw ku mu neex ak ku mu naqari waaye woote bii dana dana dem fépp moom kër lu kër sore sore lu mu ruqe ruqe woote bi dana fa àgg woote bi alquran ak sunna bii dana dana fa àgg loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam assurance la bu ko yàlla joxoon moom itam mu jox ko ñi nga xam ni ñoom la doon dundal ñu war a jàllale woote bi dalale ko seen xel kon loolu kenn ku nekk itam na ko dalale xelam xam ni liñ la sant rek mooy defal li nga tollool yow bu sa mission jeexee nga dem yàlla du la laaj lu tax diw jotu ci te fekk waru ci woon a jot waaye ku ci war a jot fexeel ba jot ci moom lu ko mooy yàlla dana la ko laaj yàlla du la laaj itam lu tax diw la nga ko waxoon jëfewu ko loolu sa yoon nekku ci yàlla li mu lay laaj mooy ndax la nga ko waroon wax wax nga ko ko boo paree li ci des moom moom moom la engagé moom bàyyil sa diggante digganteem ak yàlla la kooku moom moo tax ca ca kanam dana feeñ ca lasta alayhim bi mu saytir waaw loolu moom eh, borom bi subhaanahu wa taala li mu sant ki mu yónni di ko wooteloo mooy na jot li lañ ko sant wa ma ala rasuli illa al balaag in alayka illa al balaag kon yonent bi sallallahu alayhi wa loolu da ko dalale xelu ñi nga xam ne ni ñoom la fi bàyyi gannaaw bi nga xam ne moom itam borom bi subhaanahu wa taala dalal na xelam ci ne ah, dana bëgg ci wooteem bi dana àgg fa mu war a àgg dana bëgg ëllëg yowmal qiyaamati itam yàlla dana ko jox ba mu kontaan wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda yàlla di ko feeñalal yenn xéewal yoo xam ne nii daf ko koo defal xam nga nit bu fekkente ne danga nga koo fekk euh, ci ab situation nga génnee ko ci yóbbu ko ci bu ko gën boo ko digee leneen mu war koo war koo mën a gëm yàlla bi mu ko diggee lii fekk bi mu ko koy dig mi ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne nii danaan lii moom ndax dan des na ci génn ndax lii des dana jeex nga digg ko lu dàq loo xam ne nii lu kawe la danga koy wan dara ci li nga ko defal mooy li ñuy wax ne ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer nga war koo gëm ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer nga war koo gëm nag loolu la yàlla di tuddal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii ni ko alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna alam yajidka ndax du sa boroom moo la fekkoon yatiman ngay jirim bu amul foo wéeru sa jur teel a génn àdduna sa jur teel a génn àdduna am na ñu ne avant muy avant yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gane àdduna wayjuram wu góor génn na àdduna am ñu ne gane na àdduna wayjuram wu góor doog a génn àdduna lu ci mënti am mooy teel naa génn àdduna moom wayjuram wu góor teel naa génn àdduna ni ki noonu wayjuram wu jigéen teel naa génn àdduna waaye ki ñuy jàppee yatiim mooy ki nga xam ne ni woy juróom wu góor dafa génn àdduna te fekk muy ndaw moom fekk moom muy xale majeuragul kook la ñuy tudde yatiim yàlla ne ko xanaa du sa borom moo la fekk nga nekk yatiim ak yatiim ak nim mën a fa aawa mu wéer la ci ku la taxaw mu wutal la wéeruwaay borom bi subhaanahu wa taala boole ko maamam mi ko yoroon sax dafa teel a làqu moom itam yàlla boole ko abu taalib yàlla boole kook Abu Taalib mu di ko taxawu ci biir ak ci biti lim doon doon ba bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam demee ba nubuwa gi dikkal ko mu doonub yonent sax Abu Taalib gëmul de duggul ci lislaam mais teewul mi ngi continuer di taxawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko wéer ci moom ngir mu taxawu ko kon ki la fekk nga nga nekk ab jirim ak jirim ni mu mën a tumuraanke ci biir société bi nga xam ne ka ko doon taxawu dem na ni mu mën a tumurankee ci biir société bi yàlla ci situation booba la la fekkoon fa aawa mu wéer la wutal la wéeruwaay boo xam ne nii doo tumuranke mukk ndax du yàlla la defal loolu wa wajadaka du moom moo la fekkoon daalan ngay koo xam ne nii xamoo dara xamoo fooy teg sa tànk xamoo fooy teg sa tànk buñ bu la seetaanoon nga sànko bu la seetaanoon ci réer ngay ngay wéy moo la fekk ci situation boobu xamoo dara fahadaa mu gindi la ba ngay gindee yow ba ku bëgg a gindiku ci say tànk lay jaar say joxañ lay topp ku la defal loolu yàlla wajadaka daalan fahada moom mooy sa borom mooy ki la fekk ngay koo xam ne ni xamoo woon dara xamoo woon dara ci cànkute nga naroon a nuur continuer mënoon nga caa dund ba faatu bu la yàlla defaluloon woon xéewaluk hidaaya bi mu la defal kon sa boroom moo la fekk ca loole fa hada mu jubale la teg la ci yoonu njub tànnal la yoon wi gën def la ngay ki gën jubal la ba yaay jubanti képp ku war a jub jox la li gën ci njub yi xayrul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam njub li gën ci njub yi mooy njubal yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax moom rek mooy njub li nga xam ne ni ku ca jaar jub bi mu jëlee saxaaba yi di leen tàggat di leen yar di leen jubbanti di leen jubbanti bañ mel ni ñu war a mel borom bi daa ñëw seedeel leen ni yéen ñii de ku ñëwati seen gannaaw bu tënkoo ci lu mel ni lii ngeen tënku jub naa ñii ñëw seen gannaaw fa in aamanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ñii ñëw seen gannaaw bu ñu gëmee nii ngeen gëmee lu mel ni lii ngeen gëm te mooy njub gii yonent bi alayhi salaatu wasalaam yor faqad ihtadaw ñooñu jub nañ mooy ne ku gëm leneen moom nekkoo ci njub kon njub yonent yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla jubbanti ko ba ci moom lees mën a jaare ngir jubbanti ko foofu la jubbanti di yam yàllaa ko defal loolu wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna wa wajadaka moo la fekkoon ailan ngay ko ñàkk faqiran ailan ngay ko ñàkk yoroo ba noppi am lu la war yoroo ba noppi am lu la war muy ail ki nga xam ne ni moom ci boppam rek yorul lu mu yore boppam ba noppi am yu am ku war a yor nag wala ñu mu war a yor xam nga faqiir ba noppi yor njaboot kooku wax dëgg yàlla lu diis la yoroo ba noppi yor nag loolu lu diis la yàlla ne ko yàlla la fekkoon ailan ngay ku ñàkk fa aghnaa mu woomalal la mu jox la ba nga doyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk la doon dund dem na ba mujjug jamono nag yëf ya soppiku na mel ne gannaaw xaswatu xaybar yonent bi yi changé na waaye daf daawul yàlla joxoon na ko koom lu baree baree bare lu taxoon bàyyi lu tax bàyyiwu fi dara da daawul téye dara yonent bi yàlla daana ko jox daana ko jox waaye loolu sutura la woon da ko daan suturloo waaye da ko daan fajee soxla yi nit ñëw na di ko laaj ne ko aatani mimma mimma aataaka allah jox ma ci li yàlla jox yonent bi ne ko yaa ngi seen yaa ngi seen xurwee waa ji xool xur wi mu fees dell ak jur ay xaraki jur gu fees dell mu ne ko waaw mu ne ko yóbbul mu ne ko yow tamit te maa bañ a te maa bañ a kookali man dama lay laaj jox ma lu mu yóbbu kër ga rek mu ne ko jëlal yóbbu yaa ko moom waa ba mu ba mu ba mu dawee jiital yóbbu gëmewu ko ba mu demee yóbbu dafa ne dafa ba mu demee ci ay ay mbokkam dëkk ba mu dëkk daf ne leen daw leen dem ca Muhammad buy joxe du xalaat ñàkk fa inna muhammadan yuti ataa man laa yaxaaful faqra Muhammad buy joxe du sóoraale ñàkk joxekat dëgg du bàyyi xel bu ma joxee lii ndax danaa am leneen déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa lu nekk ko daan dikkal waaye noonu lay demee naka moo ki bëgg a joxe te amul lum joxe loolu tamit metti na ki war a joxe te amul lum joxe metti na ki bëgg a joxe te lu mu joxe metti na yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon koo xam ne ni lu mu jëfandikoo sax da ko daan të léeg-léeg mu ñëw këram du am lu mu jëfandikoo daanañ toog weer ñaari weer jëm kaw kër gi cin du fi tàkk suñu yaay Aïcha nettali nañu ko kër gi cin du fi tàkk kërug yonent bi xayrul bari bariya këram cin du fa tàkk ñu ne yaay lu ngeen daan dunde mu ne al aswadaani rek ndox ak tàndarma rek ndeysaan ndox ak tàndarma rek waaye loolu yëpp teewul mission bi di jàll loolu yëpp teewul mission bi di jàll góor am na loo xam ne ni wërta waru koo tee doxi farata góor am na loo xam ne waru koo tee doxi farata dama añul dama reerul dama ndékkiwul wóorulaa tee doxi farata wóorulaa tee doxi li nga war a doxi ñàkk añ ak ñàkk reer ak ñàkk ndékki téewuta téewuta doxi farata moo tax suñu sëñ daara Cheikh Ahmad Saxiir Lo rahmatullahi alayhi daana wax ne xiif du tas daara mar du tas daara rafle du tas daara xam nga luy tas daara ñàkk jàng lu mu metti metti feeg ñi ngi xëy ku war a jël bind jël bind daara jaa ngi daara jaa ngi dox métit wi dafa lu éphémère la dafa am fu mu yem du jàll du jeex du du du wéy fa inna ma al yusra inna ma al yusra niñ ko gisee woon démb kon euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jànkoonteel yépp teewul mission mi ngi dox ni mu war a doxe ba bis ñëw yàlla ubbil ko àdduna waaye itam alaaxira mooy dàq alaaxira mooy dàq lu ko yàlla jox fii ci àdduna rek la koy xaar alaaxira moo ëpp kon yàlla lool bu ko yàlla waxee wan ko ne ko àdduna fii rek sa mbir gënoon na fee tar sa mbir gënoon na fee metti gënoon nga fee ñàkk yàlla gis nga lim la defal wajadaka ailan fa aghna kon yooyu xéewal la yu ko yàlla defal di ko ko wan nga xam ne bët da ciy tege mu wan ko ne ko kon bu ma ne laa danaa la jox ba nga bëgg danaa la jox ba nga kontaan nga war koo gëm te gëm na ko gëm na ko waaye nun ñoo war a dalale loolu sunu xel ni yàlla ku mu dikk nga war a gëm ne lim la dikk dana ko def ku rafetal rek yàlla dana la rafetalal yàlla moom laa yudiu ajra man ahsana amala na benn waaye dafa ne ñetti inna yi ba ma ko jàngee laa la sama xel dal laa gëj laa gëj a sonn ba ma jàngee inna allaha laa yudiu ajra almuxsinina laa yudiu ajra man axsana amalan laa yahdi kayda alxaainina nee na man booba laa noppaloo ba ma xamee ne yàlla daal kenn du def njekk mu di la ko tuural mu di la ko sànkal booba la moom booba laa am jàmm ba ma xamee ne itam yàlla du farak kuy tooñ booba laa am jàmm nee na yii daal ba ma xamee ci laa am jàmm doyloo yàlla te xam ne lu ma defal yàlla danaa ci jot doyloo yàlla te xam ne lu jógewul ci yàlla mënta agsi ci man mu jeex tàkk te loolay wax ji nag kon yàlla bi mu ko bi mu ko joxee lii seedeel ko lii mu ko jox dafa am nag luy dellu siwaat loo xam ne gisoon nañ ko dem ca suuratu sharh muy xéewal dafa am nu nit ki war a jëflante ak moom yàlla da ko fekkoon yetiiman mu mu mu aar ko yiir ko mu ñëw fii nag ne ko kon nag fa am ammal yatiima fala taqhar fa ammal yatiima kon nag jirim jirim nga woon yàlla baaxe la ba aar la wéer la wutal la wéerukaay kon fa am amal yatiima bu jirim ñëwatee ci yow boo gisatee ab jirim boo dundatee ak jirim boo amatee affaire akub jirim bu alali jirim nekkate ci sa loxo bu kilifteefu jirim nepp nekkate ci sa loxo fala taqhar bu ko not di lekk alalam bu ko not di ko tooñ di ko néewal doole jirim lu garaaw garaawa garaaw garaaw la bunt bu gaaw la ngir yóbbu aljanna nit ki bunt bu gaaw la ngir sax yëkkati darajay nit ki ci aljanna waaye bunt bu gaaw la ngir tàbbal nit ki safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na ana wa kaafilul yatiimi fil jannati ka haatayni nee woon na maag kiy yar jirim di ko toppatoo di sonn ci moom di di ko dimbale maag moom aljanna nii la ñuy dëkkee nii ñaari baaraam yii ñaari baaraam yi ku ne xam na ne li ñu sutantee bariwul li ñu soree bariwul dara doxul seen diggante moog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooy dëkk aljanna bu ëllëgee jar na sonn ci jirim jar na di toppatoo jirim loo man jirim société bi ay jullit moo doonul société boo xam ne nii kenn war na fee réer kenn war na fee sànko nit ki bu ñàkkee ka ko waroon a toppatoo société bi yépp a war a taxaw kon ki yàlla man loo yow mi yàlla man loo as ak as néew kirim yan ya nekk fa nga dëkk boo leen mën jël ñoom ñëpp doon seen baay wuuf leen boo leen mën jël ñoom ñëpp doon seen lépp féete leen fépp te yàlla tax wallahi yaa ngi liggéeyal yàlla loo xam ne ëllëg bu la ko yàlla fayee nga nga ne nga réccu sax li nga jotoon a def ci ñoom ndax tuuti goo koy tuutlu loo man def ko ci ñoom yow mi yàlla man loo daara jëla gën a jege demal ci sëñ daara ba nga ne ko damaa bëggoon bu dee benn jirim la mu fekkee moom nga man ñaari jirim la ñetti jirim la téeméeri jirim yu nekk ci biir daara ji junni jirim yu nekk ci biir daara ji damaa bëgg nga recensel ma leen man seen lépp maa ko yor seen dund maa ko yor bu ñu waree jënd yére maa ko yor seen lekk seen naan maa ko yor lépp maa ko seen lépp maa ko yor bu ñu amee ordonnance fexeel ba ma jot ci seen lépp maa ko yor jarul sax ñooña di xam ne yow la jarul ñooña di xam ne yow la bu fekkente ne dañoo war a jàng te fa ñuy jànge dañuy fay nee ko seen pay maa ko yor lépp fexeel ba nga taxawee taxawaay booba boo ca mënee benn def ko boo ca mënee téeméer def ko te yàlla tax wallahi yaa ngi lebal yàlla loo xam ne nii danga nga yëg ne yàlla ko ko lebal ker guddi la lay fay kerug guddi moo gën a yaatu kerug bëccëg yàlla boo ko lebalee ker guddi la lay fay kon jirim buntu la boo xam ne nii bunt bu gaaw ci yóbbu nit ki aljanna la waaye buntu bu gaaw ci yëkkatil nit ki ay darajaam la ci aljanna bunt bu gaaw nag la ci tabbal nit ki safara yàlla nu ci yàlla musal ki yàlla boolee ko jirim mu di ko tooñ lekk alalam néewal ko doole kooku mu ngi mu ngi ci musiba moo xam ne nii àdduna la ko yàlla tàmbalee di ko ko fay balaa ëllëg yowmal xiyaamati jirim lu jar a ragal la lu jara moytu la boo mënta def ci moom njëkk rek moytul li ngay def ci moom fii la la ko yàlla di tàmbalee fay fii la fii la lay avancé moom balaa ëllëg ëllëg la lay fay waaye avance bi fii la la koy jox moo tax lu lu lu garaaw a garaaw la nit ki woy juram bàyyi ko fi ñu waroon koo taxaw léeg-léeg nga gis koo xam ne ni way juróom day dëddu bàyyi fi alal mën na ko fee bàyyil kër bàyyil ko fi loo xam ne ni teraanga mënoon na cee tedd ba faw ba di ci teeral ñeneen ñu teg ko ci loxo yu salte loxo yooya suuxal alal jooja loxo yooya seeyal alal jooja kooku lekk alal jooja wala ñooñoo ko seeqoon lekk alal jooja yàlla nee na inna alladina yaakuluuna amwaal alyataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna saira yàlla nee na ñiy lekk alali jirim yi ci tooñ teguñu ko fen di lekk alali jirim yi nañu xam ne li ñuy sol ci seen biir yooyu nañ xam ne safara la te ëllëg yowmal qiyaamati safara lañ jëm jirim des koy bàyyi xel am na suñu benn jàngalekat mu ngi dund xafidahullahu wa raah dafay nett li loo xam ne xew-xew boo xam ne ci seen dëkk la xew nee na dafa am ñaari jirim wala ay jirim yoo xam ne seen wayjur dafa génn bàyyi leen fi alal ju bari dafa dëddu bàyyi leen fi alal ju bari ndeysaan am benn commerçant bu mag boo xam ne moom moo lekk alal jooja mu lekk alal jooja ñoom xam nañ ne alal ji leen fi seen baay bàyyiloon diw sàngam mi moo ko lekk ñu dem ci imaam dëkk ba di ko ko wax di ko ko jàmbat imaam ne leen ah xam na ni kii borom doole la buñ doon dem ak moom ci yoon ñoom biñ demee dañ ne ko dañoo bëgg a dem porte ji ko plainte mu ne leen te ngeen ko plainte seen borom te ngeen ko kalaameek seen borom ñu dégg ndigal lool ndeysaan diis seen soxla ñu diis ko seen boroom li leen metti ñu diis ko seen borom gis nga kooka na ñu dafa taxaw ci balcon këram taxaw ci balcon bi ab bal moo jógee bal boo xam ne bal perdu lañ ko tudde nga xam ne xamul fu mu jógee xamuñu fu mu jógee moo ñëw rek dal ko ci ci gannaaw bi bal boo xam ne xamuñu fu mu jógee moo ñëw rek balu fetal ñëw dal ko ci gannaaw bi ci ndigg li nu mu def deewul de dafa paralysé lam yoroon ci alal yépp dana ko fajo bu deewoon ci saasa day sedd ci moom deewul yàlla da ko teg feebar boo xam ne nii muy gis ñim tooñoon di jàkkaarloog ñoom te pexe amut alal jëm lekkoon ak jim jotoon a liggéey lépp mu war koo fajoo te du wér fa muy mujj mooy ci dee la mujj da ca àggagul bu sañoon dee waaye deewagul loolu avance la rek avance la avance la ngir jirim ñi mu tooñ gis nga dëkk bii ñu nekk dëkk bii ñu nekk di kokki xam naa fi nit koo xam ne nit faatu na génn àdduna muy commerçant bu mag moom bis biñ demee ba di ko miraas ba di ko miiraas la kooka ñëw commerçant bii ma lay wax nekk ci dëkk bi la ñëw indi benn mallette boo xam ne ay millions fukki millions nangam treize wala quatorze million moo ca nekk bi mu ñëwee teg ko fi ñu doon miraase ne lii kat diw sàngam mi moom ma ko dénkoon diw sàngam man mi génn àdduna ñu war ko miraas tey nga xam ne dajale nañ liñ am lim am ba ne moom lañuy ñuy miraas les yee yeekee yor ñoom ñaar a ko xamoon ak yàlla mu yëkkati ko ñëw fi ñu fi ñu toog di miiras boobu sëñ Maxtaar loo mii xafisahullah ma nga toog ca miiras ma sëñ Maxtaar ne ah ñun ñëpp de kii jàngal nañu leçon bu rëy a rëy xoolal ñaar yi ni ñu wute te kii bu ko neexoon alal jooja bu fekkoon see seetul boroomam alal jooja moom kenn du jot ndax ka ko dénkoon ñoom ñaar ñoo ko xamoon kooka moom dem na waaye ndax yàlla ma ko fekke woon dem na lu dem mu dëlloo si mu jël yëkkati alal jooja ñëw dërëm manqué wu ca mu ñëw jébbal ko jébbale ko ca ca ca jataay ba mbokk ya njaboot ga ko waroon a seddoo seddoo ko loolu te soxlawu ca dërëm loolu mbokk yi mooy taxawaay bi jaadu mooy taxawaay bi rafet mooy taxawaayu ab jullit loola dong loola acte boobu dong bu ko yàlla fayee jaam booba mu rus jaam ba dana rus ndax li ma def yëlloowu ma pay gu toll nii yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay ci àdduna yàlla na ko yàlla fay ëllëg alaaxira loolu jàngukaay la bind la bu ñëpp war a jàngee kon nañ ko bàyyi xel bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nga koy dénk kon di ñu dénk dun ñëpp fa am al yatiima fala taqhar wa amma saaila saaila kii ñëw di laaj si falaata tanhar bu ko jànni bu ko gëdd bu ko jànni bu ko gëdd saail nag ñaar la kii ñëw di laaj si xam-xam ngir bëgg a xam kii ñëw di laaj si am am ngir ne daa ñàkk ki xamul bay ñëw di laaj si dalal ko bu fekkee li muy laaj xam nga ko xamal ko ko boroom xam-xam sañu ñu koo laaj lu mu xam mu di ko nëbbu sañu ko sañu ñu laaj xam-xam mu di ko nëbbu kon ki xamul na dem laaji ki xam fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamoon yàlla nee na bu ngeen xamut laaj leen ñi xam yow mi xam buñ lay laaj fa amma saa wa amma saaila fala tanhar bu ko jànni danga mën a laaj da ngeen déedéet yaa toog position buy tax ñu war laa laaj dañ laa war a laaj sañ nga nag boo xamul nga ni xaw ma te loolooy li jaadu looloo war boo xamul neel xaw ma kon kooku xam-xam lay laaj waaye kii laaj si am am itam ndax dafa ñàkk aji ñàkk ji ñëw di laaj si am wa amma saaila fala xar bul gëdd bul jànne boo amee jox ko boo amul wax ko wax ju teey yaakaar loo ko wax ko wax ju ju dal léeg-léeg nit ki mën nga ko jox sax boole ko kàddu goo xam ne ni bañoon ko jox sax a gënoon a sedd am danga am mën a laaj nag am na lakkale nga yooyu mbokk yi ëpp nay def ëpp nay def yàlla ñi mu tagg mooy ñi nga xam ne ni na yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi summa laa yutbicuuna ma man mannan wala ada ñi nga xam ne ni ñu joxe ci yoonu yàlla dañ joxe te yàlla rekk tax te lañuy joxe kàddu du ca topp kaddu guy guy blessé ki ñu ko jox du ca topp waaye duñ ko damoo itam duñ ko bàkkoo duñ ci ñoo ñu la yàlla tàgg kon kiy ñëw di laaj si jox ko boo amee la nga am lu mu tuuti tuuti bu ko xeeb boole ko kàddu yoo xam ne nii dana yëg ne bu fi fekkoon lu ko ëpp dana jot bu fa fekkul dara it yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na al kalimatu tayyibatu sadaqa wax ju neex sax sarax la kàdd gu teey sarax la kon waxal ak moom wax ju tey ne ko ah wax dëgg yàlla day diis na ci man lool de wax dëgg su ma sañoon de boo ñëwee fii doo dem feneen boo ñëwee rek sa soxla fajo tey de wax dëgg da nga ko fee fekkul rek waaye day euh, xëy na balaa yàgg incha allah yàlla dana indi xéewal yàlla na yàlla defar lépp wax ko wax joo xam ne nii wax dëgg yàlla boo ko waxee nit joxoo ko dara waaye wax ji dana dana am fu mu ko toll foo xam ne léeg-léeg sax moo doon yëkkati moo ko doon gën nga yëkkati jox ko kon wa amma saa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yàlla nee na ko sa xéewali boroom amma bi ni'mati rabbika sa xéewali boroom nag fa xaddis na koy waxtaane fa xaddis na koy waxtaane euh, benn boroom xam-xam ibnu usaymin rahimahullah day wax ne yàlla neewul fa axbir de na koy na koy waxe na koy waxtaane la wax bu ne woon fa axbir mooy na nga koy rek waaye fa xaddis bu ko yàlla jëfandikoo xaddis bihi nafsaka wa xaddis bihi gayraka wala xaddis biha nafsaka wa xaddis biha gayraka maa ngi jéglu kon xéewal gi yow ci sa bopp na ngay toog di ko waxtaanee ak sa bopp ne ah man kat yàlla defal na ma nangam yàlla defal na ma na ah man mii yàlla deselatuma dara na yàlla lu ne yàlla defal na ma ko yow ci sa bopp del toog di ko waxtaanee waaye xaddis biha gayraka na nga koy na nga koy wax ñeneen itam li la yàlla defal ci xéewal na nga koy bokk na ci waxtaane gi mooy na nga koy wane yàlla subhaanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dafa bëgg bu defalee jaamam bi xéewal xéewal gi di feeñ ci jaam bi waaye yàlla jox la loo sole yére yu rafet ngay sol lu kenn mënta wax loolu jaaduwut jaaduwut jaaduwut nit ki dafa war a xéewali yàlla dafa war a feeñ ci jaam bi dafa war a feeñ ci jaam bi loolu la yàlla bëgg loolu la yàlla bëgg ku la gis ku la gis na naw li nga nekk bu mu xeeb li nga nekk bu la yàlla joxee ba noppi nga bëgg a yem ak ñi yàlla joxut day mel ne yelloo wala la yàlla jox naam bul solu ngir damu bul solu ngir wanewoo bul solu ngir puukaréew bul solu ngir yëkkati sa bopp déedéet waaye solul ngir ne yàlla xéewalam gii daa bëgg da da ngay koy da koy def ngir sante ko yàlla xam bi la yàlla jox boo koy wax boo koy génnee bu ko génnee ngir wane wanewoo bu ko génnee ngir puukaréew bu ko génnee ngir nit ñi yëkkati la seen kaw déedéet waaye def ko ngir xéewal gu la yàlla defal moom ngay feeñal léeg-léeg nit jaar jaar jaar yoo xam ne nii ndam yi ko yàlla defal mu di ko wax daf koy def daf koy wax ci kaadaru wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis ndax loola nit ñi dañ cee war a jànge loolu tax léeg-léeg nga gis lu ñu tuddee eh, siira daati ya te mooy nit ki ñuy wax léeg-léeg ay jaar-jaaram loola dafa am lu muy jariñ dafa am lu muy jariñ mooy nit ki ñi nga xam ne ñoo koy dégg ne ah kii kat nit dong la ba noppi def lii man de war na maa fetliwaat laxasaay kii mën naa am sax maa ko mag wala ñoo maase wala lu mënti doon situation yi may dund man moo gën a sax moo gën a sax euh, jàppandi situation yi mu doon dund moom ba noppi def jëf liggéey bu rëy bii man war na maa war na maa taxawaat loolu yooyu buñ koy wax dañ koy wax ci cadre wa maa bi ni'mati ko fa xaddis xéewal yi la sa borom defal dee ko feeñal dee ko feeñal ci wax waaye dee ko feeñal ci bitti muy feeñ nit ñi di ci di ko gis nga di ko sante sa borom kon loolu mooy suratu duha gis ngeen saaru rëy rëy rëy la saaru wu magga magg la saaru wu am am solo la woo xam ne itam comme niñ ko waxee woon ci suratu charh day tracel nit ki nan la war a dunde digganteem ak boroomam waaye digganteem ak société bi ko yàlla wàccee mu di fi dund boole kook ñoom nan la war a dunde ak ñoom kon yooyu mooy leçon yoo xam ne ni dañ ko war a jëriñoo ci saar yi ñuy jël dañ ko war a jëriñoo ci alquran ji ñuy jàng yàlla nu yàlla defal tawfiq te defal nu dégg ak jëriñoo yàlla nu yàlla defal dégg ak jëriñoo hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daarakoki TV la chaîne au service di cinq Coran